Euh, favori muy Bassirou Diomaye fay ak euh, Amadou Ba euh, nan nga gisee les chances de de de de Bassirou Diomaye d'abord de devenir le proche le cinquième président de la République du Sénégal. man sondage yi ma liir yëpp effectivement ñaari candidat yooyu ñooy candidat nga xam ñoo kon waaw sondage yëpp dafay wane ni. ñoom ñaar ñoo raw ci yeneen candidat yi sondage mooy lan sondage mooy lan sondage euh, xayma boo xam ne ni koy xaymaa mooy dañuy jël ci sénégalais yi ay échantillon maanaam jël ay ouvrier jël ay élèves jël ay étudiants jël ay mère de famille jël ay jeunes maanaam classe d'âge maanaam pàcc bu nekk ci réew mi dañ ci jël ay nit euh, euh, nit yooyu ñu laaj leen kañ lañ bëgg a voté loolu bi ñu ko defee effectivement Amadou Ba ak Diomaye ci sondage yëpp ñoom ñaar ñooy ëppale ñeneen ñi te liñ leen liñ leen ëppalee sax dafa bari euh, sondage yëpp dafa wane ni Euh, am na possibilité bu am solo que mu am deuxième tour boo xam ni Amadou Ba mën na ci jàmmaarloo ak Diomaye Faye sondage yu bari wane na donc sondage yi dafay euh, envisager deuxième tour cela dit cela voilà bu ñu waxee loolu ba pare nañu ci dolli aussi ni dafa bari ni ñuy woowe ay indécis maanaam ay nit ñoo xam ni ba léegi bu ñu kan la ñuy wotal ñooñu ñooñu lu ci ëpp ci ñoom au premier tour maanaam nekkuñu ci configuration boo xam ni par force deux tours day am déedéet ndax indécis ñoo bari bu fekkee ni indécis yi bariwuñu maanaam ñi nga xam ne nii ñu ngi werante seen xel ba xam fan la ñuy dem bu fekkee ni woon ñooñu bariwuñu woon dinañ mën a xam ba xam deuxième tour mën na am man de dinañ mën a wax ak certitude ni deuxième tour euh, day am mais indécis yooyu moo tax te ñooñu mën nañ dem ba jour élection ci wateel kenn wala keneen ñooñu ñu ci ëpp bu ñu wateelee kenn ki ci ñoom kooku mën na jàll au premier donc indice yi bu ñu basculer du côté de Diomaye mën nañu mën na jàll au premier tour qu'est-ce qui peut pousser ces indécis à basculer d'un camp comme de l'autre par exemple du côté de Diomaye lan moo mën a convaincre indécis. loolu li nga loolu du analyse yàlla. il y a des facteurs. yu mën a yu mën a déterminant dans cette élection là. waaw waaw parce que xam nga lu tax euh, euh, boo xoolee da ngay liir boo liiree nit ñi bari ñu bind ci ay élection nit dina jógee këram sax sax ci xolom woteel benn candidat dem ba ci urne yi woteel keneen man loolu laay woowee facteur yàlla parce que nag euh, analyse pour man dafa am fu mu yem. maanaam bisu élection yi ki yàlla def ci xelu NDC yi xol seen xol pour ni voter ko mooy ki yàlla tànn pour jox ko nguur parce que nag dama la benn affaire sondage yëpp dëgg la études yëpp dëgg la mais lenn mooy dëgg te mooy dëgg gi gën a wóor mooy kiy falu moom yàlla moo koy tànn te jour élection bi mooy jël kooku def ko ci xolu nit ñi même ñi bëggul voté ñoom sax bu ñu accès ba ci urne dañ koy voté